xeex Mame Ndiaye Savon coalition du ma tax a daanu ndax xam tax yàlla xol lay fay te xol bu jekk baa ngi ci man yàlla xol lay fay te xol bu rafet baa ngi ci man ambiance la ma yàlla di fay te ambiance baa ngi ci man xam nga la laa bëgg ngeen bindal ma ko Mame Ndiaye au thème au thème la Mame Ndiaye Savon maa coow li ci buntum teen xale yi amul baag la waaye dama leen a dóor tëll calavage bi daan leen jël bu kenn dootul werante gis nga man a mën a gi ci réew mi ku ne naan man a mbir mi du kenn mbir mi Mame Ndiaye Savon la damaa bëgg ngeen tàppatel leen ma live bi xale yi man nee naa leen bu xale toogee ci écran di wax lu rëy man maa ko waral man ba may direct xale directul maa mujjee ñëw ci direct waaye damay dëbb direct xoolal eh xorom suñu yàlla def du ñoo fi waaye ñun ñoo saf soo fayee un milliard taxul xale yi taxul xale yi bëgg la nga fay cinq milliards taxul xale yi bëgg la xale yi xam nga kan lañ bëgg ku naturel koo xam ne xëccul dara koo xam ne day sant yàlla julli ci yonent bi barke allah ji fàllu bàkke man maam Ndiaye sa boo xol la ma yàlla di fay te yàlla bu ma fayee sama xol dëkk bi day daal di yëngu pas de histoire pas de xeex pas de xam nga réew mi fu mu toll lan lañu fan lañu nekk jamono ji focus ci sunu liggéey buñ duggee ci focus sunu liggéey ambiance kaf foo reeta à part la problème qui ah. se pose rien na tey kenn mënul ci ñun aucune ay doom lañ doom yoo xam dañoo am ñaan man de su ma neexee fëgg sama sama dënn sama cakk yëngu ma ne sama yaay damaa ñaanal su ma neexee ne sama baay damaa ñaanal su ma damaa am ba am ñaanu maam sama maam daa lax ba màggat mère Koura Sow sama maam ndeysaan bu ma gisee jooy lay njëkk daf may ñaanal bay jooy ndax dafa xam fi ma jóge ak fi ma egg si ak li ma indi ba fii dafa ma naan su ma mënoon dugg ci tiktok bi di wax damay dugg ci tiktok bi wax te dégg naa comme tiktok bi buñ duggee di ma sob di wax sama maam bu déggee rek ñoom dañuy seetaan dafa am fii bu déggee rek danaan vidéo leen ma vidéo leen ma ma wax xale bii lu mu def ci àdduna vidéo leen ma ma ne ko ma ñëw mu naan te bu dama naan damaa bëggoon dugg tey ci tiktok ma ne ko jaru ko mu ne ma am ah. ma ne ko man tukuloo laa toorooda sàmmangaari jamaar man réew mi ma fi gënul gënoo ma man nen na moo ji baaba moo ji bingel man ñaari goro ma jur ma judd ñetteel leen man euh, leeraabe gii laa dëkk boo jugee leeraabe maa nga dëkk Fuuta Fuuta leeraabe boo jugee foofu maa ngi bukki jawe boo demaatee Fuuta maa ngi bukki jawe kon man samay maam bu ñu gënul gënoo leen wax ji nag liggéey la waye boudé dignité bi mi ci ñun boudé personnalité bi mi ci ñun tay ku dal sa radio di fecc ba xalé di la suivre à cause de man parce que xam nga lutax ma fi imbi ambiance ma séer da nga daan gis ku di wam naan voilà ci c'est que c'est-à-dire ma ñew indi fi jëlé fi lool jël suñu culture tek muy jundju ba rek na jambaray wa ma rek ko wax luma saf ci digg Dakar kan moo may ma fëgg sama dënd sama caq yëngu xalé accepté ma man doomi réew mi la réew mi ma accepté barke Alaaji Fàllu Mbàkke sama kanam gi tojotoowu eh dama ne ngeen rek jal joob sàng maar fukki pénc ak juróom-ñaar waxandoo maan benn xale mën a gi ci réew bi ku ne naan mën a mbir mi du kenn maam Ndiaye savon la léegi yu baax yi maa koy jaay boxe ko jaay ko normal nga diwoo ko weex savon yu baax yi maa koy jaay normal nga diwoo ko weex wax amatul ci réew mi bal tàqul fetal du jóg yaa ngi man man maam Ndiaye savon ah. barke Alaaji Fàllu Mbàkke du ma bay ba du ma fay benn influenceur mu may wax te bu ma ko naree def jël ko saraxe ko ci ah. daaray yi maa ma jox ko xale yi ko yelloo man ci jëmm boppam